mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin arrahmaani rahiim maaliki yawmi diin iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin ihdina siraatal mustaqiim siraatal laziina an'amta alayhim ghayril maghduubi alayhim wa lad-daalliin aamiin allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-faatihi limaa ughliqa wal xaatimi limaa sabaqa naasiril haqqi bil haqqi wal haadii ilaa siraatikal mustaqiim wa ala aalihi haqqa qadrihi wa miqdaarihil aziim يا حمد الشيخ يودنا بهذا المهدر وسعت فيه بنصر تاتنا بسفر ربي ñu leen di nuyu bu baax di leen ziara di leen baal ak di leen baal ak di ñaan yàlla yàlla ñu yàlla kilifa yi nga xam ne ñoo nekk kilifa kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci diine islam fii ci réew mi di nuyu kilifa yi nga xam ne ñoo yor aaday réew mi di nuyu sénégalais sénégalais su ma waaye mën nekk ci réew mi ak bitim réew ñu ngi lay nuyu di la nuyu nuyu islam te mooy asalaamaaleykum wa rahmatullah doomu aadama bi ko yàlla di bind daf ko bind bind jinne jinne nag la jëkk a bind euh, soo ko bind nit parce que ba ca demee ci sax loolu la yaxal na yàlla taarix bu koy wax ci alxuraan ni mu demee la koy waxee doomu aadama yi ñooy wax ne yàlla dafa bind nit ak jinne fekk yàlla waxul loolu yàlla dafa wax ne damaa bind jinne ak nit wa maa xalaatu gis nga waxut ins de jinne la njëkkee soo ko teg ins kon yàlla jinne la njëkk a bind soo ko teg nit kon bu fekkee yàlla dafa bind nit eh, lu jiitu muy bind nit mu bind jinne kon di nga ci xamee ne doomu aadama jinne la yàlla jiital jinne la yàlla njëkk a bind jinne la yàlla njëkk jox xam-xam jinne moo njëkk a jaamu yàlla lu jiitu doomu aadama yàlla di ko bind euh, nekkut dafa bind doom jinde pare rek bind nit te nekkut ne dafa bind nit rek rek wàcce ko ci suuf ba léegi mu fassiroon yi ci balaaxa gi may wax ci quraan ci usuliyaati quraan yi dangay gis loo xam ne dina nekk lu mat téeméeri milliards at ñoom bu ñu la koy taf firil dafay mel ni yàlla dafa jógee ci lii rek dal ca lee fekk gis nga maam aadama balaa ko yàlla di jële aljana di ko indi ci suuf dund na ci aljana lu ëpp dundab àddina lépp xam nga àddina jeexagul te xoolal bu ñu la koy nettali dafay mel ni yàlla daf ko wax rek dafay mel ni yàlla daf ko bind rek ne ko bu lekk garab gi yaa ngi dégg lekk la neex bu lekk garab gi lekk na garab gi mu mel ni yàlla dafa taxaw mu lekk garab gi yàlla wàccee ko dafa mel ni noonu la bu ñu la koy boo xoolee kii sax laajam bi moom nga nekk di wax nii. te xaw ma sax laaj bi nu mu laaj. wallaay jannatu ah jannatul aadama lati xaraj xarajaha. yaa ngi dégg. waaw léegi aadama. Mm-hmm. génne gi ko yàlla génne. Mm-hmm. lan mooy lan moo waral. Mm-hmm. yàlla génne. aadama xaljana. yaa ngi dégg luy génn aadama xaljana te man xaw moo na sa laaj bi gis nga ko loolu la léegi nag aadama alayhi salaam dafa dund ci aldan ci aljana dund boo xam ne moo ëpp dundam àddina yàlla soo koo wax ne ko fekk iblis bi ko yàlla bindee yàlla tuddewu ko woon iblis nekkul woon seytaane jinne la nekkoon bi mu nekkee jinne dafa nekkoon ak moroomi jinne mi di jaamu yàlla waaye mu bokkoon ci ñi nga xam ne ñoo gën a topp yàlla ñoo gën a ragal yàlla ñoo gën a nangul yàlla ñoo gën a déggal yàlla ma wax nañ ci taarix ne fépp foo natt sebre ci suuf iblis su na fa yàlla junni at màggal ko fa xoolal loolu kon xam nga kon li ma wax ñëw na foo natt sebre mooy lii lii mooy sebre sebre mooy li ko dalee fii ba fii yaa ngi dégg sebre mooy lii li ko dalee fii boobu li ko fii ba fii mooy sebre soo nattee sa loxo nii nii xoolal comme masalan boo defee nii nii ci kaw suuf ba mu daj iblis fu nekk sujjóot na fa jaamu fa yàlla sujjóot na sujjóotal na fa yàlla junni at kon xam nga Iblis nekkut koo xam ne ku gàtt fan la. dëgg la te li lay xamal ne loolu ma naa nekk te dëgg la mm. mooy mooy dundam gannaaw aadama. moo tax wax naa benn waaye tey ci taksan mm. ma ne ko noonu boo xam ne suñ bàyyi aadama mm. daa dundak moom ba dee ba ko fi maam aadama bàyyi na fi téeméeri junni doomi aadama eh, ak ñaata junni téeméeri junni ak ñeent fukki ay doom ak i sët junni mhm. ñëpp dund nañ dee di dund di jur doom di dee di dund di jur doom bañ jeex takk mhm. noonu bi ne fi yonent yi yàlla tàmbalee mhm. lay bu nekk dund nga ba dee alfa lañ ñoom ah, xadim la maanaa cent vingt quatre mille prophètes kenn par kenn dund nañ di dee di dund di dee di dund di dee di dund di dee ba jeex takk noonu baa ngi fiy dund xataa yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi ki nga xam ne moo gën mbindee fi ñëw na ba mission jeex mu dee bàyyi fi noon bi saxaaba yi àndoon ak noon bi di dund di di dee par benn noon bii dund ñuy dee par benn noon bii dund bañ jeex takk noon bi continué taabiin yi ñëw waxuma saxaaba yi saxaabatul kiram de saxaaba yi dee nañ ba jeex ba fi noon bi te moom lañ doon xeex xeexal taabiin yi ñëw dee ba jeex ba fi noon bi taabiyeen na yi ñëw dee ba jeex ba fi noon bi wala yépp ñëw nañ ba xatal aan ba ci ba seen amati an sërif ñëw dund feeg noon bi ba dee ba ko fi bàyyi ña sara dee ñëw nga xam ne moom bu ñuy wax xam-xam ak jekku noonu ak mën a xeex ak moom yaa ngi dégg moo ci mën gannaaw yónnoon toog Seexu Tijaan dee ba fi ba fi noon bi kooku alxuraan moo wax ne suñ noonu la te xam nga yàlla lu mu wax ne dëgg lu wax ne dëgg la kon xam nga ne kooku kuñ ne sa noonu la ngay tëdd di nelaw ah yow def ngaa dégg ki wax ne kii sa noonu la xoolal ñi ma la limal ñëpp bañ jeex ñëpp ci seen kanam lañ judd ci kanamam lañ lañ ah xam nga iblis aadama ci kanam lañ ko kanamam lañ ko bindee ñi ma la limal ñëpp kenn ku ci nekk juddu nga ci kanamam màgg ci kanamam dee ci kanamam moom mu ne di bon rek kon bu ñu la waxee na la su jóotal na la na yàlla foo natt si sa loxo sebre bu ko werante xoolal lim dund gum rek te fekk dund xam na nit ñi dund ko dee loolu la tegtal que ta nit boo koy firil dara lu ko wees da nga koy indil ci lim janoo dëgg noonu lañuy ñuy nettalee taarix dëgg la kon suñu la waxee iblis ku gudd fan la mm-hmm. yaa ngi dégg mm-hmm. di ko nangu dëgg la d' accord nañ ci point boobu léegi. bu baax. mu ngi noonu léegi nag kooku moom moom aadama da ko fay fekk yàlla bind ko ci kanamam fekk moom yàgg gim yàgg jaamu yàlla moo fees bëtam yi ndax abaa wastakbara bañ gim bañ Adama ak rëy gim rëy rëy lu googu moo ko génnee safara. moo ko génnee aljana mm-hmm. yaa ngi dégg mm-hmm. bañ gi mm-hmm. dafa yàgg iblis bi mu bañalee aadama yàlla xam nga lu mu ko rusee woon nangul gi mu ko nanguloon ndax doon ko muñal ndax dana tuub booba réyut moo tax yàlla boo defee bakkaar dina la may ñaata fan lañu wax dana la may ñeent fukki guddi xaw ma ñu ne pour xool ba xam ndax da nga nga cosaan la fu mu jógee ko mhm. mooy bi ab bi iblis bañee mhm. ba bam koy daq réyu lugaa tax mu daq ko loolu moo indi taaxiru luga dëgg léegi nag iblis bañut rek ñu génnee ko dafa bañ ñu bakko fa léegi nag baka fa mhm. moo waral yàlla ne ko aadama garab gii bu ko jege iblis nag foofu mënoon naa am sens tuub tuubut aadama ak xawaa jege ko mu mu was wasal leen mu fa was wasal lahuma saytaane mu jax-jaxal leen ma tax lii di bëri naa lu ma koy nettali waaye dafa nekk loo xam ne dafay leeral xam-xam ndax xam-xam bu fondement bi leere loo ci teg rek mu mën a dem. day borom xam-xam yi looloo tax nag man ma bëgg. ñu am départ bu leer. dëgg la bu dëppoog sawaab. Mhm. bu dëppoog hikma. Mhm. bu dëppoo xel bu dëppook euh, euh, euh, li tadabur ndax yàlla moo ñu ko wax loolu moo tax taarix su leeree day dëppoo Qur'an te day dëppook hadis yi day dëppoo xel. dégg wax ji. léegi nag loolu moo indi yàlla comme ñoom bind yi ba leen yàlla bindee daf leen waxoon ñu jaamu ko mu bind malaayika yi ñu mu wax leen ñu jàmm ko. waaye jaamu gi yàlla di jaamuloo jinne yi ak nit ñi ci seen coobare la leen ko di def defal waaye malaayika yi ñoom ñu ngi jaamu yàlla ci ndigalam ndax moom sañu ñoom mooy yàlla ndax ci ndigal yàlla lañuy ñuy jaamu yàlla ñii nag yàlla daf leen digal ñu jaamu ko ba pare mu wakkil leen coobare ñu koy jaamoo ci coobareem malaayika yi nag wakkil gi yàlla wakkil coobare ñoom amuñ ko dëgg la mu xam nga tey boo ko bëggee dégg. Mm-hmm. mu ngi mel ni nit ak oto. Mm-hmm. oto. Mm-hmm. doo ko wakkil coobare. soo ko taalee bàyyi ko rek mu mbëkk. dëgg la faw mu am. ku ko dawal. léegi nag. faw mu am ku ko dawal. léegi nag yàlla bi mu bindee malaayka yi. daf daf leen a jaamuloo. ci ci li ndigalam. léegi nag mu mu sant jinne ak nit pour ñu jaamu ko waaye yàlla wakkil leen coobare léegi moo waral ñuy julli ba yàgg ñu ne ah man xaaral ma xaar ba ci kanam coo woor jotee mu ne ah tey damay woor suba du ma woor loolu seen coobare la moo tax mu ne wa ma xalaqtu jinne wal insa illa liya'buduni léegi nag jinne ak nit rapport bi leen boolee ñoom ñaar yaa ngi dégg maanaam musuñ te xam nga yaa ngi wax ne ndax jinne ak nit mën nañ ànd. mën nañ ànd waaw loolu contraire ba am moom lañ waroon a laaj li nga waroon a laaj mooy ndax jinne ak nit mën nañ teqali nañ teqali loolu lañ waroon a loolu moo nekkoon laaj bi man ndax jinne ak nit mën nañ teqali loolu moo waroon a nekk laaj bi. dëgg waaye jinne ak nit ndax mën nañ ànd. loolu yàlla wax na ko ba pare. ci fan bi maanaam. wa maa xalaqtu jinna wal insa illaa hmm, maa bind nit ak jinne. pour ñu jaamu ma. kon kay moo lay xamal ne yàlla dafa àndale nit ak jinne. léegi nag. Hmm. iblis bi nga xam ne moom la yàlla bind. Hmm. moom moo nekk noonu way gëm yi. iblis du noonu nit kese. dëgg la noonu nit la ak jinne. yaa ngi dégg. iblis. noonu nit la. ak ginne yàlla dafa wax ne yàlla dafa wax ne adama euh, yaa yaa bani aadama an laa taabudu seytaan innahu lakum aduwwun mubiin wa an u'buduni haadha siraatun mustaqiim de yaa ngi dégg ba li ma tax na yàlla ne doomu aadama mm-hmm. xam nga jinne soxlawut ñu koy wax ne iblis sa noonu la. ndax yow tey fi mu ne nii. Uh-huh. nit ku nga ngàbbu jaaxle jëm ci yow. bu bu boo boo koy séen. waaw wala aussi maanaam boo koy séen muy ñëw. bu jëmut ci yow sax. sa xel dana xalaat ne maa kii jëmut ci sama kaw. xam nga lu ko waral. da ngaa nit muy nit nga xam ko. yaa ngi dégg. dëgg la. iblis comme ci jinne yi la bokk. <laughs> jinne yi ñoo la gën a xam ne saay-saay la moo tax yàlla du ko répété. Euh, parce que ci ñoom la bokkoon moo tax yàlla du wax yaa bani euh, euh, jinne. waaw ah, wal inti. Oh, du wax wal inti de du wax yaa bani jinne xam nga alquran la lay wax balaaqa lu tax alquran du répété. moo tax foo fekk mu répété. taxawal. tanadalu malaayikatu wa ruuhu ñu ne malaayika yi ak ruuhu jibril loo répété la taxawal tegal tabaaraam ba gis lu leer foo ko fekk ci alquran da nga fa fekk xawlaan waaw parce que balaa xa arab ci boppam sax du ko attan day daal ah, day dangi dangi day dangi dangi répété gisoo qul naasi. illaahi naasi. loolu problème la ci ñi fassiroon yi nga xam ne ci arab la ñuy sukkandiku pour firi alquran ndax ci la war a sukkandiku pour firi alquran waaye fow nga am ndimbalal yàlla li yàlla wax ne waraasiquuna fil ilmi. ñooñu rek ñoo xam alquran ñoo xam. taawilaati quran yi. te du nekk ku nekk rek dana jóg nekk raasixuuna bi leen. déedéet raasixuuna fi yàlla ko ma yàlla dafa bàyyi ba tuddee ko raasixuuna raasixuuna xam nga ma leen. Hmm. mooy ñi nga xam ne yàlla moo leen xool ne yéen moom maa leen koy jagleel. waaw loolu wërsëg lay doon. dëgg wala yàlla lay jox. du wut hitte. wërsëg la maanaam ñooñu nga xam ne yàlla moo leen wërsëgal xam-xam. ñooñu rek ñoo mën a firi. waaw taawilaatu quraan yi. allahu akbar dëgg la moo tax mu ne waraatiquuna fil ilmi loolu nag. Eh. moo lay xamal ne. Eh. jinne yi. Eh. yàlla da leen wax ne moytu leen iblis seen noonu la ndax iblis ñoom la jógee. tey fi mu ne nii. suñu armée nationale. Hmm. suñu amee benn capitaine. ñu ne ko demal ci dëkk sàngam. Hmm. nga nekk fa espion. Hmm. nga espionné lu dëkk ba. mu dem ba gars yi détecté ko au ñu jàpp ko rey ko ñu jënd ko influencé ko jox ko alal mu nekk défaillant léegi di di yoole secret ña ko yónni woon waaw léegi bu ko ñooñu gisee ndax sax saxla na ñu koy wax kii seen noonu la loolu moo tax yàlla du ko répété moo tax yàlla du tudd mukk ci alxuraan ne jinne yi Iblis seen noonu la parce que xam nañ ne defe yàlla léegi ci seen biir pour wax la ba alquran fi nga xam ne falaa ci toll ci xam ak dégg ba lu tax yàlla tuddut ko wax jinne yi waxut jinne yi ne Iblis seen noon la eh. moom laa lay wax lu tax mu wax doomu aadama yi ne Iblis seen noonu la hmm. parce que Iblis hmm. jugewut ci nit ñi nit ñi duñ xam bu ñu noonooxee ana na noonoo ko na mu nu muy nu muy waaye bu ko yàlla waxee nit ñi danañ ci xamee ne kon kii kat dafa sérieux mbiram duñ ko foxee ndax lu jaral yàlla wax du lu ndaw ñi ko xam nag mm-hmm. duñ ko wax joxloo ñu leen koy wax <laughs> <laughs> dégg la dégg ko mu ngoog loolu moo tax nag mm-hmm. nit mm-hmm. fala budda su ko neexee day ànd ak jinne su ko naqaree day ànd ak jinne ndax alxuraan moo ko yaxal moo tax nit fu jaar dana ànd ak jinne xam nga lu tax keroog bu ma lay firil saa saaru izaa zulzilatil ardu zilaalahaa wa axrajatil ardu asqaalahaa wa qaala al maa lahaa yawma yawma isin tuhaddisu axbaarahaa bi anna rabbaka awhaa lahaa yawma isin yasduru naasu baatu naas bëri na lu yi di tarxiis ci Qur'an uh-huh. di jël maani uh-huh. di ko indee di ko indee balaaxa uh-huh. naas moo leen moom naas baatu naas a ko waral. bëri baat yoo xam ne balaaxa lañ ko firi ci alquran balaaxaa ko firi. waaye du xam-xam. am na foo xam ne ci alquran balaaxa du ko firi xam-xam moo koy firi. léegi nag ñoom buñ eggee ci foofu balaa xa la sukkandiku balaa xa bi lañ koy firi balaa xa ba moo leen di daaneel xam nga yow ma yafiru mar'u min aqihi wa ummihi lu bannihi moo indi zawjata yi ñu ne kon bannihi saahibatihi bi maanaa zawjati pataka que bu zawja mooy def ban mooy tax doom mooy am doom kon ca ban nii ga moo leen joxa joxoñ ñu xam ne zawja la loolu balaaxa lañ sukkandiku fekk du balaaxa xam-xam moo leen waroon a firil zawja moo leen waroon a firil saahibati gi xam-xam a ko waroon a firil waaye woon balaaxa moo tax ma leen balaaxa gi léegoo léegi nga war ci mu tarxis loola dëgg léegi nga léegi nga teg sa tànk ca kaw balaaxa nga detteer lu ma jaaxaan fekk fekk balaaxa attanut balaaxa attanut alquran dafay joxoñ mhm. pour nga def fikra ci mën a dégg maani quran loolu lay njëriñu balaaxa lu xam moo am doole waaye balaaxa amul doole ndax balaaxa su lënt amee mën nga koo jël pour mu joxoñ la du dafa lay joxoñ rek mais amul sañ-sañ mhm. joxoñ rek la mën balaa du borom sañ-sañ. dëgg la. usul sax moo ëpp doole balaax waaw. gars yi de si usul lañ gën a si balaax la ñuy gën di moom lañ gën a sax favoriser. parce que lu tax. liñ lëntale ci quraan gi moo bëri te balaaxa daf lay joxoñ ne la xoolal baat bii baat bii lay mën a xàndal baat bii baat bële la mën a xàndal baat bii baat bële la mën a xàndal yow da topp ci loolu boo demee ba fekk fu yàlla yi jëfeyante faxaalu li maa yurit day jël usool ak balaaxa sànni ne wax lu ko neex léegi foofa eggee boo sukkandiku ci balaa ko ànd ak moom ca géej ga <laughs> comme bu yàlla jëlee lii <laughs> nga ko lu neex def xam nga moo tax ba mu eggee ci faamaa man utiya kitaabahu bi yamini wara déedéet bi yamini fa sawfa yuhasibu hisaaban yasira wa yanqalibu ila ahli masrora wa ama man utiya kitaabahu déedéet bisimilah moo waroon a ñëw. Eh. bi yéem bu doon ca ba xalaat lañ sukkandiku. bisimilah dikk waaye gis nga li la wax faxal lu ma yurit dafa oh. jël dafa jël xam-xam. jëfandikoo ko yàlla. ci usul ci ci balaaqa Qur'an foofa lay xam-xam di mën a xam-xam mooy firi balaaqa Qur'an. moo tax mu ne yamini fee mun a sahrihi wa amaa man ootiya kitaabahu waraa sahrihi mu teg loxo na le léegi nag sa waraa sahrihi léegi foofu nag waraa sahri gi sañ-sañu balaaxa ba foofu ngay dem doo dem tew wa wa amaa man ootiya bi yaminihi léegi bi yamee nii gi léegi nag moom ngay foog ne mooy usul bi fekk wara asahri yi mooy bi ndax wara asahri yi uh-huh. moo indi yamini nii dëgg la léegi nag soo xamut balaa xam alquran yamini yi gi ngay foog ne mooy usoolu baat bi mooy usoolul maani bi mooy usul quran bi fekk du usul bi wara asahri yi mooy usul bi xam nga loolu koy xamal li la koy xamal mooy jëf ji mm-hmm. moo tax ñu wax fiilu amar fiilu fiilu fiilu amri mu mudaari boo demee ci balaaxa arab dañ la koy jàngal fexlu yi fiilu maadi fiilu mudaari fiilu amr léegi fexlu boo demee ca fiilu amr ba ca soolu Qur'an da ngay fekk yi da ngay fekk yenentu moom la yàlla jox xabaar bi kum ko indil kooku nangu mooy yam yi nii léegi jëf ji mooy mooy jëf ji ngay dem boole koo war a asari yi ndax yonent ndax yonent bu dikkee ne la ne la ma yónni mm-hmm. lislaam baa ngi mm-hmm. boo bañee nooy def da nga koy kon da gis ne dikk gi mooy jëf ji feexlu amr boobu mooy dem ca mooy doon usoolu usool boobu ngay jël bale ko war a asahri yi ñaar yooyu ñu usool yi bi yemi nii gi dañ koy sànni <laughs> sallallahu alayhi wa sallam foofu ngay sànnee bi yemi nii gi léegi raa sahari ak xibaar bi yonent bi indi mhm. moo tax ma ne kitaab bi mooy risaalatu gi <laughs> risaalatu mooy eh, universitaire <laughs> yi waaw ñoo fi taw loolu mooy loolu mooy wax ji moo tax faamaa man ootee kitaabuhu bi yaminihi donc foofu da nga koy jël tànn ne le léegi léegi nag. waaw faamaa man ootiya. wara asahrihi ñooy ànd léegi bi yaminihi gi. lu bi nangu rek la. nag soo ñëwee ci balaa ko arab yamini c'est Mali moom laa lay wax nag léegi nag yàlla su bindee nit mhm. jinnee tax mu bind ko ndax bind jinne moo fi nekkoon ba bon di yàq rek yaa ngi dégg léegi nag eh, yàlla mere leen moo waral mu bind aadama mais ci beneen yàlla dafa bind aadama. waaw comme ni mu bindee jinne yi. Euh, fil arti gi. waaw la uutee ba amee. bi mu waxee ne bi mu waxee ne qaala rabbuka xam nga lu waral yàlla wax malaayika yi yàlla baaxoo di def di yëgle yëgal kenn maanaam def leen wan ne la aadama fi ngeen ko doon fekk léegi nekkatu fa xabaar la leen doon ni mu waxee ne inna laa wa malaayikatu yusalluuna ala nabi léegi nekkatuñ ci Iisaa léegi ñu ngi ci yonant loolu la la wax malaayika yi wan leen ne léegi aadama fi ngeen ko doon fekk léegi nekkatu fa toxal naa ko ci suuf mu dem mu leen a jaaxilu yàlla dafa am sañ-sañ. lépp lu muy def sañ-sañ la koy def mu ne ini jaayilu aji def lu mu la fil ardi si suuf def na ko ci suuf léegi su ngeen ko soxlaa xaar leen ko bu ngeen ko bëggee gis suuf ko gisee waaye doo dana gisati ci <laughs> ini jaayilu fil ardi waaw. laa wax ji. waaw loolu moo tax nag jinne mm-hmm. ak nit mm-hmm. mësuñ teqale ko léegi iblis. moo fekk yaay. ak doom. ak baay. ñu mën a baxante waaye xam nga doom fi mu sosoo mm-hmm. foofu bànneexu diggante yaay ak baay baay la. ñu kontaan lool ci waxtu wi doom di sosu xale bi juddu ñu bëgg lool sant yàlla bi yaay ji muccee xale bi nekk taar ñu koy fóon di ko raay di ko ban bannee ba mu màgg mu xëy woon yaayam ginnaaw yaay ja woon ko ginnaaw mu wan baayam ginnaaw baay ba woon ko ginnaaw saa waaye loolu iblis rek ko mën ah kon iblis moomu moo fekk yàlla bind nit bind jinne boole leen mu séparé leen saay-saay la lii yëpp tax yàlla la seen noon la xam nga li tax yàlla mën na wax na yaa Adam yaa bani Adama mun mun na wax Iblis sa noonu la waaye waxut sa noonu la de ko defee seen mu nga yóbbaale Adama lakkum lakkum lakkum ja jinne ya ja ci amokaale لكم منه laa ilaaha illallah lay xamal la jinne noonu nit la ak jinne euh, seytaane noonu nit la ak jinne parce que lu ko waral fii su dóori naas allazi yu waswisu fii su dóori naas ndax an mooy jinne ak nit te jinne am na xol mm-hmm. nit am na xol mm-hmm. jinne am na góor mm-hmm. nit am na góor jinne am na jigéen mm-hmm. nit am na jigéen moo tax mu ne miin zakarin wa unsa inna xalaxnaakum naa zakarin wa unsa dëgg la voilà inna xalaxnaakum min zakarin wa unsa man yàlla innaa naka ñun yàlla foo ko fekk inaak yàlla gi mooy jëf joo xam ne logique bi dafa ëpp na maanaam li ci nekk logique bëriwul sañ yàlla bu koy defee inaa lay utiliser buy def ci loo xam ne dafa dépassé logique. loolu inaa la yàlla utiliser. nga xam si sañ la koy defee. moo tax fu mu utiliser inaa rek. Mm-hmm. xaaral xam ne la may jëf la may def. xamal ne loo xam ne boo ko defee rek faw mu laaj faw mu laaj boroom xam-xam dëgg comme inna nahnu nazzalna zikra gis naa ga gis nga. Ah. Ah. zikra wa inna. wa inna gis nga. léegi sañ-sañam yàlla bi lay wax inna yàlla sañ gim sañ. Mm-hmm. loolu mooy inna gi maanaam jëfam ji. Mm-hmm. ak jëmbam ji. Mm-hmm. loolu mooy inna waaye du wut ñaar yàlla. moo tax jinne waaw innaa xalax naakum yaa ayyuha naasu ee yéen nit a ginne innaa xalax naakum yaa ngi dégg min zakarin wa unsa wa jaxal naakum suxoban wa qabaila ñun yàlla ñoo leen bind ngeen jukkee ci góor ak jigéen wa jaxal naakum suxoban wa qabaila ñu def leen ngeen nekk ay giir yu li taxaara foo ngir lan xamante am taxaar moo tax nga laaj ndax jinne mën naa ànd ak nit yàlla mu ne ah kay loolu moo tax bind leen pour ngeen xamante pour ngeen ànd ndax jinne dafay dimbale nit nit dafay dimbale jinne ñoom ñaar nga war a ànd te naa la xamal lenn képp koo xam ne fexe nga bëre ba sa seytaane tuub mooy jinne ji nga xam ne daa juddu ànd ak yow nga juddu ànd ak moom iblis yar ko jël njabootam dugal ci moom kooku la yàlla wax seytaanal ins mm. kooku moo tax dañu wax nit ku nekk yàlla bind na seytaan mu ànd ak yow mm. fekk jinne ji rek la waaye seytaane mi ko yar mm. moo tax ñu def tuddee ko seytaane ndax ku nit sax bu ko seytaane duggee dañuy wax seytaanal ins fekk ins du seytaane sa ins nit la waaye ci seytaane mi ko dugg moo tax ñu ne ko seytaane wala mbon gi mbon ba bokk ci njaboot seytaane moo tax ñu ne ko tuddee ko seytaane far kaw tuddatuñ ko nit léegi nag jinne tamit noonu la mel. moo tax nit ki ñu ne ko saytaane bi nga àndal foofu mu tuubal ko léegi nag seytaane boobu su tuubee. ngay xam ndax jinne war nañ ko ànd moom wala war a ko xam kooku noonu nag. mooy wa saahibatihi dëgg la. moom la gars yi di wax wa saahibatihi wa bannii jàpp saahiba ga daf ko yaay. ne bi maanaa zawja zawjati fekk saahibatihi gi mm-hmm. mooy kooku yàlla inaa xalax naa ko googu wa min zakari unsa ga mooy xa saahiba ga yàlla wax ne wa maa xalaxtu jinna wal insa illaa liya'buduni mm-hmm. mooy saahiba ga saahiba ga la bu ko iblis moo ko yar mm-hmm. dafa waroon a jaamu yàlla jaamuwut yàlla yow bu nit ki juddoo baayam ak yaayam jox ko ay yéeféer ñu yar ko bu màggee xéeféer lay doon bu amul ndimbalu yàlla lay doon xam nga lu tax ma wax la maa amoon ndimbal yàlla. ñu ngi may wattandiku loo yonent yàlla Moussa te firaaw na te firaaw naa ko wax na yi ñu ngi wax na ma defal ndànk balaa ngaa wax musiba. <laughs> gis nga ko. ba xamul ndimbalul yàlla. xeefeer lay doon ndax Moussa. firaaw ko yar. te terewul jullit la. lu <laughs> <laughs> pour bëgguñ sax ñu jàmmal tool mën mën puso dëgg yàlla bi gën a mag bokk na a mag. mu jiitu nekk yonent bi yàlla. waaw. kon da ngay gis ne. Uh-huh. saahiba ga mooy àndandoor bi yàlla bindaale nit ki. léegi nit ki nag yonent saa salaam dana kullu mawludu yuludu alal fitra uh-huh. ku judd ku nekk. Uh-huh. sa yaay ak sa baay. buñ lay eree ci lislaam da ngay nekk julit waaye ku dudd ku nekk julit nga waaye nag yaay ji ak bàyyi ji bu fekkee nekkuñ ay julit mm-hmm. ñooy yëxal loolu nit ki mbaa ñu nasaraan loo ko lu ñu ci nam mm-hmm. mooy ñoo koy sàgganee ci gëm yàlla dëgg wala ñu hitte wala ñu ñu yàq ñu yàq ko ci gëm yàlla ndax am waaw parce que du tax mm-hmm. euh, an na minallaahi parce que moo lay wan ne ñëpp dañoo gëmoon yonentu moo ko wax anaa minallaahi mooy man moo jógee ci yàlla wal mu'minuuna minni mooy ñëpp ci man lañ jógee parce képp ku baxee ko ci yàlla rek da gëm yàlla parce que xaaloo bala alastu bi rabbikum waaw dafa yeex na yaa yoon di nag kafaroo yàlla di wax ñi ñi nga xam ne dañoo nekk ay yéeféer ñooy ay kaafar lañ mooy ku wéet di moo lay wane gëmoon nañ te ña moo tax yonentu saa saa mu maandu mu ne Eh, ana minallaahi wala mu'minuuna minni mooy ñëpp ci man lañ jógee mooy ñëpp gëmoon parce que ñëpp bañ nekkee ci yàlla bañ fa baxee koo yàlla bindee leen ci jëm yonent bi ñëpp gëmoon déedéet boo juddoo kay mm-hmm. la sa di la wala sa baay wala sa jamono tigi ji loolu moo tax nag jam yaay ak baay ñoom tabax nit ki mm-hmm. nag kooku mm-hmm. yas naasu bi ñu ne yasdur danañu daje. annaasu nit ña. Mm-hmm. léegi daje gi ñuy daje. Mm-hmm. mooy nit ki juddu. Mm-hmm. yaa ngi dégg. juddu gim juddu. ñëw ñu koy tudd. naasu nit ñi danañu ñëw. ak jinne yi. dëgg la yasdur naasu. astaatan léegi annaas. nit kiñ ko firi. ne mooy nit. moo tax astaatan ñu def ko tasaaroo. boo demee ci mufassiroona yi astaatan tasaaroo lañ ko firee ndax naas ga ndax gañ def nit kese taw joxuñ ko nit ak jinne ndax dajee nit ñi dafa am dajee jinne yi am dëgg la macha allah aleykum salaam Mamadou Kalilou Diop uh-huh. dajee nit ak jinne dajee nit ñi dëgg est ce que dégg nga wax ji léegi yasduru naasu astaatan li raw ahmaalawum léegi nag foofu uh-huh. du ma uh-huh. ndax laaj bi du loolu laaj bi mooy jinne nit ndax mën nañoo ànd wala war nañoo ànd wala suñu ànd ndax jariñante mën naa ma wax la ne la wax ne nit ñi nit ki bi mu juddoo moo jinne dañoo ànd ñëw annaas mooy nit ak jinne yaa ngi dégg foo ko fekk ci alquran uh-huh. nit ak jinne lay wax yàlla muy wax ne ci alxuraan wa mina naasi man yaqulu amanna billaahi wa bi yawmil aaxiri wa maa hum bil mu'miniin wa mina naasi googu mooy nit ak jinne xam nañu ci wax ne gëm nañu waaye gëmuñu jinne duñ ko tuubal jinne duñ ko tuubal am na nit ñu tuub gëmuñ ko ñooy naa yi am na jinne yoo xam ne da nga leen tuubal fekk tuubuñu dañ lay wax tuub naa fekk tuubuñu mooy naafeq jinne yi moo tax yaa mu ne naa si ba am na ci nit ak ginne ma kook ma yoqalu kook dana wax aman naa gëm naa billaahi wal ci yàlla wa bi yawmi aaxir bés bés penc yàlla ne déedéet wa bokk ñu ci koy tax ki gëm yàlla mm-hmm. suñ ko yaree muy nit ki mm-hmm. dañoo waroon a yaraale jinne ja ci lislaam mm. buñ yaroon jinne ji ci lislaam yar nit ki ci lislaam ñu màggandoor yaa ngi dégg nit ki xam jinne ji jinne ji xam nit ki ñu ànd seytaane du dox seen diggante léegi nag seytaane su yaree jinne ji yow sa baay ak sa yaay yar la yow yaa ngi ci biir jëmm ji seytaane ak jinne ji ñar mu ci biir jëmm ji yaa ngi dégg léegi yow soo ne damay dem moom seytaanee ko yar mu ne ko na toog nga ne nga ne waaw man boobu ba léegi maa ngi bëgg a dem man xamul ma téye <laughs> xanaa loolu nit ñi dinañ ko seetlu seen bopp. bu baax léegi nga ne naa ko jox. waaw mu ne la bu ko jox de waaye kii dafa soof sax kii la ndox ma ko jox nanga xanaa loolu nit dinañ ko dund. Ah, nga xam ta xaalis di ko jaay. nga jékki-jékki nga dem marché ba. nga jaay sa ba mu jeex. nga ñëw ne waaw man yoroon naa 100000 man fu ma ko jaarale xanaa loolu dinañ ko dinañ ko dund. lu ko waral parce que élément ba nekk ci yow. saytaanu moo ko yar. ni nga xamee ci jëmm ji. Eh. noonu la ci xamee xàq su soxlaa jëmm ji. Eh. te moo la ëpp doole eh. daf lay pousse na de def li def def li muy def ba pare. looloo tax ne bàyyi na mu ne. si yaar yàlla xamoon. waaw alxuraan wax na ko sax alxuraan la parce que si. <laughs> moo tax li yàlla xamoon foofu nga koy xamee <laughs> ndax ñaari élément ngi ci jëmm ji. ndax kii dina wax nañ dem. kii mu na na toog kii xam nga déggoo la nga ñëw tëdd bëgg nelaw. moom mun na nelawoo ma de kooku moom la ñuy insomnie ak jeex na. laa ilaaha illallaah Muhammadu rasuulullaah. law kaana fiihimaa aalihatun illallaah. lafasadataa la. kon fa subhaanallaahi fa subhaanallaahi. fa subhaanallaahi. yaa rabbil arsil ammaa yasifuun. mu ngi noonu. allaahu akbar. tudd na ma sell ak yàlla. loolu moo tax nag su ñaari yàlla xamoon ci xaalam bi. waaw. yàlla jii day wax ne taw mu ne ko du taw kii mu ne ko nit ñi ne dund mu ne ko day dee kii ne ne parce que loolu xew na ci jëmmi nit ki nit ki ne damay dem seytaane mu ne ko da ngay toog man de bëgguma dem damaa tayal. Ah, baatu tayal mooy baatu tayal. looloo tayal. parce bëgg a dem am na waaye dem mën a dem man te ñëwut te mën a dem saa waaye ko yore mën ne mën ne man de bëgguma dem mu ne man ah bëgg na dem waaye damaa tayal naa bàyyi ba suba fekk saa waaye tax. waaw léegi imaginer yooyu yëpp nag su ay tuubee nga def nañ dem la ayca nañ xool mu ne la ne aywa nañ nelaw mu ne la aywa nañ julli mu ne la aywa faatiha dama koy jàng ma ko bëgg a teewal mu ne la aywa léegi ngay jàng faatiha ne bismillahi rahmaani rahim jékki-jékki na ne yaa ngi wax wala moom mu ne la kaay da julli nga ne waaw diggante sujjóot ak kabar moom moom doo ko fekkee loolu sa dépense la dëgg gis nga li may li may li may waxtaan li may waxtaan bi ba bàyyi ne leen wala taalibu tijaan yi bu ngeen di laazim de leen ko teewlu uh-huh. xamul tax uh-huh. soo ne allahuma uh-huh. saa waay da lay rocc téye nga jékki-jékki rek sa loxo ci beneen bopp ko beneen bopp kurus bi doo koy seetlu ah. tàmbalee fii rek gis sa bopp ci loxo ci beneen bopp ba te li nga téeméeri salaatu fatiha nga bëgg ko jàng juróomi ci ñetti minute téeméeri salaatu fatiha allahuma salli ala sayidina muhammadin ilfatihi lima uxliqa walxaatimi lima sabaqa naasir alxaq bilxaq walhaadi ila siratika almustaqimi wa ala alihi xaqa qadri wa miqdaari asim cent fois calculer leen secondes yi ngeen multiplier ko par cent ngeen xool ndax loolu nit mën ko koo jàng ci ci ci deux minutes deux minutes macha allah Assane nga tàmbali. rek nga gis sa loxo ci bopp ba. fekk saa waay moo la nag kaay yow da ngay <laughs> man de bëgguma laajum te te nii. ba egg ca bopp ba nag wala mu des ñaari per mu delloo la nga gis ne yaa yoo ñaari per nga ne man kay temps yu jàng ma jàng salaat fatiha moo nooy sama laaj bi nangu na sama laaj bi moo mokk léegi ci salaat fatiha léegi moo tax mu gaaw loolu lay se di déy sa nopp bi te Cheikhu Tiyaa na la na la teew bàyyi na ne na isa isa euh, ni mu ko waxee sax euh, idikaari wirdi isaa saraxta fi idikaari wirdi ta ad e, nu si tegee sax e, isaa saraxta fi idikaari wirdi e, xanaa gaa ngi dégg bàyyi la booy jàng wirdew tijaan bàyyi ne la na nga teewlu na dal mm-hmm. Mm-hmm. na nga teewal sa sëriñ mm-hmm. lu tax mm-hmm. sa xel su dajee sa sëriñ sa kanam nga gappate ko toog toogaayee ko toog sa kanamu sëriñ mu ne lana la dimbale mu ne bihi yuraf xaal al mara ulil muwaatini teewaay gu ngay teewlu moo lay éggale ca wàccu waaye kawe ya parce que mu ngi lay wattandikoloo taay taay bi xam ne la à tout moment mën na laa fëkk léegi nag li lay xamal ne seytaane dafa daj xam nga lu la ko la xamal mooy ñi juddu te yaruñu leen ci lislaam mu yar leen. képp kuy jullit ku la yar. li eh, ca waajur. képp kuy jullit. yonent moo la yar. kon kuy xéeféer ku la yar. <laughs> yaa na tak yaa sarata fii di kaariwili fa laazimo ah, ah, ta eh. fa laazimo ta fi za ta waaw haddi déedéet ñu ngi dafa jiw fii kenn. déedéet waxal waxaatal. Isaa sarata fii dikaari biir bi. waaw. fa laazimu. Isaa sarata fii dikaari biir bi fa laazimu. waaw kii bi dafa jiw fii. gars yi mën naa am ñu indi ko. Euh, fa laazimu adaba xadaral xaddi. waaw fa laazimu waaw kay al adaba loolu la fa laazimu na nga taxaw al adaba te kii nii. waaw xadaral xaddi kem dayoo sax. noonu la waaw ah, noonu la noonu la très bien macha allah jërëjëf al adaba waaw ah, xadaral kem dayo sa waaw fi zahiri wa tafa tàddabu na nga teggiinu fi zahiri ci lu feeñ wa baatin ak ci lu nëbbu bihi bihi ci teggiinu googu yu rof xaa la yëgee al u cam lil mawaati ni ñeel wàccu waayu kawe ya macha allah noonu la waaw mu rabbi waaw bis dooni ray bin allah macha la yaa ngi dégg. waaw loolu la jërëjëf si gars moo baax. Ah. yaa ngi dégg. lii moo nekk. ku ku ku seetaane maanaam ku juddu yonent la moo ko yar. ku dëng iblis moo ko yar. léegi ki iblis yar boo gisee ñu ne àndandoor dina jëriñ dana lor su àndandoor bi nekkee julit dina dina la dimbalee nga nekk julit moo tax Baay doon wax ne eh, xarit. nu mel rek noonu la borom xarit bay mel xam nga lu ko waral nit sax bu fekkee dafa am àndandoor bu bon boo xam ne nit la ni moom muy tux bu yàggee rek nga gis mu ñemee cigarette wala bu yàggee xet gi doot ko doot ko sonal bu amee sens dëgg mm-hmm. du tux waaye bu amul sens mm-hmm. xet ak cigarette moom dootu ko déranger kon xam nga kooku tuxloo nañ ko tuxloo nañ ko tuxloo gu ndaw ba mu des tuxloo gu tuxloo gu mag gi nag mooy mu jël cigarette bi xëcc di ko xëcc dëgg léegi nag nit ki su fekkee àndandooram ab effet la bu amoo ndimbalu yàlla faw mu tayal loo ko wala mu dem loo ba yàq ba yàq ko moo tax àndandoor koo gis ñu ne nit ku ne am na àndandoor looloo ko waral. moo tax nit. day àndak ak fors la. waaw bu ko neexee day àndak ak su ko naqadee day ànd ak mu ñemee ko mu ngi àndak moom. mu ragal ko mu ngi ànd moom. mu ngi des nag ci. mu fexe ba xam ku ko dimbale ba jinne ji àndak ak moom mu mën koo. mu mën koo maîtriser mbaa ñu mën a dëppoo ci ay principe foofu la wax ji ne xànd gi nag moom bu dëppoo amee dara gënu ko maanaa xam benn sa sa xàndandoor tuub gëm yàlla nekk julit moo gën nga xam Macky Sall juróom-ñaar fukki junni yoon ci nga am bu kenn waaw parce que kii yaaw yaa ko xuti mais kële yàllaa la boole moom te kii lim mën mm. kële mënu ko maanaam fépp foo jotewut mm. mën na faa dem loo mën ta def mm. mën na koo def lu la upp mën na la ko wan loo ñàkk mën na la koo jox loo yéexi mën na la caa ut looy bañ yi ñu jiitu la ca wala ñu gannaaw la ca mën na la caa xaar ah, dafay benn te bu la màkke bañalee mën naa fexe mu nangul la te boo bañee eh. màkke nangu mën naa fexe ba màkke du li mu bëgg di ko def moom mën na ko tey Macky ne day def. force. di nga xam ne man du ma sa morom. nga ne ko saa waay. Uh-huh. waaw mu ne ko bu mu ma tal sax mu créer kay situation bu bu xëyee yoon da lay fàtte. <laughs> moo tax uh-huh. man ni yàlla boole ñoom. man maa mën a jël kay ak bik ne kaay ma jàngal leen luy jinne ak luy àndandoor man. ni koy démontrer moom tegtal na dem leen ci école gars yi ndax da fa fekk benn ustaas buy jàngalee nit ak jinne seen ànd. déedéet jinne rek. waaw ma xalaat jinne wala rek bu ñu ko sorti jinne sax dégguñ ko. suñ ko firee rek pare nañ ci. ay yenn laay yi nga xam ne moom ni ñu ko kii mais détaillé seen ànd ak seen dund. loolu ko dund ak ñoom a ko mën. <laughs> moo tax képp ku yàlla may tawfiix mm-hmm. ba sa àndandoor tuub mm-hmm. Hmm? Mm-hmm. santal santa yàlla gis nga yonent saa moom xam nga li lay xamal na saay-saay bi iblis élément boobu kafa ci fowu ci yonent saa salaam bi bosam tuubee dafa ne ci ndimbalal yàlla la tuubee mu lay xamal na loolu lu lu ndaw moo tax kenn la ci iblis mayut kanam kenn benn sëriñ benn taalibe tanegu la ci gisoo Baye. Mm-hmm. radiyallaahu anhu mm-hmm. nee na sama seytaane. Mm-hmm. mënut ma yàqal mënut ma xiir ci dara lu bon. moo tax tuub. dafa war ci seen dafa war ci ñoom. léegi nag kooku. moo waral nag. su àllaa àllaaxiraa nga xam ne amoon nga sañ-sañ ci jëmm ji mu am ci sañ-sañ mm-hmm. te yow lañ wax ne mm-hmm. yaay xalifa bi kon responsabilité bi ci yow la gàddu mm-hmm. yow yaa ko gàddu loolu mooy xilaafa ga ni lu fi ardi léegi nag ñoom ñaar bu ñu àndee nit ki mooy xalifa bi mooy gàddu responsabilité bi léegi nag moom la yàlla yow ma yafiru mar'u min aqihi wa ummihi wa abihi wa saahibatihi soo demee yàlla na la kaay lii waxtu julli li jotoon na defoo ko woon. waaw nga ne ko yàlla lii yëguma ko fekk saaxibati gi moo la toxal. téye jëmm ji ba mënoo julli ji. nga toog na yaa yaa caanal julli jot nga di ko xool ba julli passé mënoo julli. waaw yàlla tegal na ko sa kanal ne la waxtu yu jotoon na julli woo mu leer la leer yàlla ne yow bëggoon ngaa julli. waaw xam nga bëggoon ngaa julli mooy sa responsabilité. mais mën a dem julli mënoo ko ndax saa caay bee la téye nga bëgg koo leeralal yàlla fekk moom ne na picc ting daw bala fa parce que wa saahibatihi wa banii da lay daw boo waxee yàlla mun ne ko yaa xaw a ko ne mooy responsable <laughs> léegi nag gars yi xamuñ luy saahibatihi ñu ne mooy zawjati ta zawja saa yonente saa sallam bi muy di ànd ak Ababacar Sadiq ca Makka te ca Madina yàlla bi muy wax ne ñaar ñi ànd yàlla leen ñetteel saahibati la wax léegi na ñu bëgg a jël saahibati yi def ko jabar fu muy nekkee jabar moo lay wax ne balaaxa bi boo ko toppee te xamoo usulul quran wala xamoo ba maani wala yàlla mayul la tawfiq nga xam alquran saa waaye da ngay daanu boo dekkee ci balaaxa bi da mu tarxis lool moom laay wax gars yi ne leen balaaxa bi da mu dugal leen ci bi balaaxa baa ko parce que boo ban nii boo demee ca suratu jinni bañ waxee ne kii قلوا yooyu أنا دعوانا من الجن قالوا إنا سمعنا قرآنا يهدي إلى الرشد فآمنا به بربنا أحدا jaddu rabbina mu tax sax saahibatan gis nga après wala wala gis nga léegi na ñu gis na sax ah, jaddu rabbina ma tax sax saahibatan jàpput ko saahibatan àndandoor parce que ñun dañ koo soxla eh. yàlla soxlawut àndandoor waaye yàlla ci affaire bi tamit alxuraan euh, dama ne la. waaw wala dan doom bàyyee soxla ndax ëllëg. Uh-huh. mu donn ko moo tax wala wala dan nga. léegi nag ñu jël walat ga nag comme wa comme wala dan ñëw na te saa yu bëti ñëw na te xamuñ saa yu bëti gi la ñu ne kon caw ja yàlla du soxlawut jabar yàlla soxlawut jabar dafa jara wax déedéet yàlla dafa wax loolu loolu wax ju suufi jooju Alxuraan dana ko waxee yàlla soxlawul jabar yàlla loo dof dof xam ne soxlawul jabar moo tax moo tax lu leer ci xel ngay nëx nëx lu yàlla lu ci wax luy lëntal xel la yàlla leeral waaye ñun ñëpp xam nañ yàlla soxlawul jabar lu may dee jabar moo tax nag wa saahibatihi wa tax sa saahibatan wala wala dan jàpput ko xàndandoor xàndandoor mooy mooy yàlla soxlawut comme ñun élément bi ñu soxla koy dimbalee ku koy jeex na hmm. léegi ne la lay xamal ne kooku ndimbal la moo tax bu tuubee nga koy xam su tuubee ngay xam ma tax sa saaxi ba tan fa nga koy xamee ndax njëriñ lim lay amal hmm. da nga xam ne lii la soxla la wa wamaa doom boo màggetee mu taxawu la njëriñ lim lay amal ci ngay xamee doom xam na njëriñ yàlla mu ne loolu soxlawu ko ma tax sa saaxi ba tan laa wala dan parce que dafa xaw a tolloog ba tan ndax doom daf lay taxaw sa soxla rek du wute yow sa benn bëgg-bëgg saaxibata loolu moo ko waraloon ma ñàkk am ko ko yar ak mu ànd ak nit mm. waral iblis yar ko ba xam a bosoo mosoo njëriñam mais bés bu tuub woon ma nga mos njëriñam mm. bu ñu lay waxee ma tax sa saahibatan mm. doo xalaat debar moom ngay xalaat xam ne gisoo gisoo man man pour ma boolee nit ak jinne maanaam li mu gën jaa néew di nga fay téeméer junni allahu akbar te faw ma óolu la pour def ko pour la <laughs> gën jaa <laughs> te mën naa leen a boole mën naa leen a boole ci benn minute. <laughs> léegi leer na. <laughs> ma lépp looy wax ak nit wax leen ko ci alxuraan. nga lu ko waral mooy nit ku judd ku nekk. Iblis dafay jël élément boobu. yar ko. mu nekkal ko ci kooku. maanaam ci nit ki après moom it. am na ay doom. parce que les yi yu was wisu. Euh, minal jinnati mooy xannaas. xam nga xannaas. Uh-huh. dañuy wax doomu iblis la. benn dañ ko def. déedéet xannaas mooy njabootu iblis. dañuy wax ne doomu iblis bi bu iblis indi woon jox ko aadama nag pour mu yaral ko ko. yaa ngi dégg pour mu xam secret aadama. aadama ray ko suul ko. ñu ne ko ñu ne iblis ñëwaat dafa an sama doom ji. mu ne ko sa doom ji de dee na. mu ne ko kannaas xannaas jóg ñëw. ba xannaas jógee ñëw. wax ak moom. mu ne ko man kay kii xam-xam laa soxla ci moom. soxla ba ci moom ay problème yoo koy jaral ma rek. ibli aadama mu dem ñu ne ñu mu dem aadama jël ko ray ko léegi daggati yàpp bi yëpp sànni ko mu tasaaroo mu ne ko mu ne ko sa doom ji mu ne ko sànni naa ko mu ne ko xannaas xannaas dajaloo waat ñëwaat yaa ngi dégg léegi mu aadama jël ko dëbb ko def ko mu nekk dóom mu sànni ko sa ndox ma léegi mu ne ñu ne nit ñi naan ko moo waral ku nekk saytaane nekk ci yow dañoo xamul taarix bi bëgg nañoo wax nit ñi li xew ba ku nekk xam saytaane xamuñ lu ko waral fekk yàlla moom wa maa xalaqtu jinne wal insa illaa liya'buduuni saytaane amutoon jinne nit rek a amoon waaye iblis mu mooy yàlla mm-hmm. saytaane yàlla bind ko léegi mu nekk saytaane mm-hmm. mu jugee ca safara moo tax mu yónni sa xalaqtani min naari mu jugee ca safara waaye iblis jugee wut ci safara mm-hmm. biñ ko bindaatee yaa ngi dégg la jugee ci safara moo tax jinne yi nit ñi ba ñu xalaxte ne min naar yi fekk ñu xam ne iblis jinne la woon moo tax ñuy wax ne jinne yi safara lañ fekk jinne yi duñ safara iblis mooy safara ak njabootu iblis gi ñoo jugee ci safara ndax ñoom la yàlla yàllay wax ne ñoom ñooy xànnaas mm. yaa ngi dégg moo tax nag lësi yi mm. xànnaas googu lësi yi mooy ñi nga xam ne xam nga xànnaas ku ci bokk mhm. soo jugee ci njabootam iblis dem ci jinne dugg ko kooku saytaanel insi la saytaanel jinne la léegi su jugee ci xànnaas njabooti njabooti iblis mhm. ñooñu ñooy xànnaas mhm. xànnaas du doomu iblis kese doomu iblis yëpp ak iblis ñoo tudd xànnaas bi giir gi comme giir yi yaa ban doom yaa ban ni aadama noonu la mel yaa ban ni xànnaas yaa wa kay yaa ban loolu mooy xànnaas léegi nag tasaaroo gi ñu tasaaroo ci nit ñëpp mm-hmm. mooy ku juddu mm-hmm. yaruñ la ci diine mm-hmm. iblis dana fa yebal njabootam ñu dugg la wala ñu jël mu jël jinne jooju yaral ko boppam mu nekk élément ci boppam naka mu dajee woon yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sa waaw ko yàllaa pour nga laaj pour nga laaj ma ba mu ko laajee ne ko kan ngeen gën a bëgg mu ne ko ku nay ku nay ku rëy ku rëy ak ku mbëru ku mbëru mu ne ku kañaan mu ak ku xañaan mu ne kooku moom dañ koy fob rek def ko mu nekk saytaan comme ñun eh. duñ fa nekk sax di ko soppali dañ koy fob rek moo tax gi nga iblis eh? boo gisee yoon xooteem gaaw eh? yàlla soo koy jaamu noo ko gën a jaamoo mu gën laa def jàmm. mu gën a suufee mu gën laa mu gën a nekk jàmm def kooku jàmm. jàmm waaw. iblis nag boo koy jàmm. moom noo ko gën a jàmm mu gën laa def iblis moom du la def jàmm da lay def yàlla da lay def iblis comme moom. loolu mooy différence bi. macha allah gis ko. léegi nag ñooñu. moom la yàlla wax ne. Mhm. Euh, min sharri waswaasil xannaas. min sarri xay la woo xam ne mu ngi tukkee waswaasi ci jax-jaxal xannaas ci giit ak xannaas allazi yu was wisu allazi mooy giit gi gaa yi nga xam ne li lay xamal ne du genn allazi mooy ña nga xam ne gaa yi nga xam ne yu was wisu def nañu jax-jaxal yaa ngi dégg fii ci dóori naasi ci xolu jinne yeeg nit ñi nga xam ne gëm nañ yàlla milal jinnati ñoom ñooñu ñii xanaas gi giita xanaas gi ah. ñoom ñëpp ak iblis ñu nga jógee ci jinne ndax ñoom ñu nga jógee ci iblis iblis nga jógee ci moo tax mu ne minal jinnati wanaasi mooy nit ñi nga xam ne gëm nañ yàlla ak jinne yi nga xam ne gëm nañ euh, jinne yi ak nit ñi nga xam ne mm-hmm. iblis du kenn ci njabootu iblis dugg na leen ah. ak nit ki nga xam ne kenn ci njaboot njabootu iblis dugg na leen moo tax mu ne minal jinnati wanaasi mm. léegi ñooñu ñëpp ci xanaas lañ bokk maanaam nit ki sax mujj na bokk ci xànnaas moo tax yàlla mu ne wanaasi wanaasi gi nag moo lay xamal ne ñu njëkk ñi ak ñu mujj ñi du benn waaye seen maana yi seen maanaay benn la moo tax mu boole leen ci wanaasi wagaa leen utale ndax ñoom nit lañ yoo xam ne seytaane leen dugg ak jinne yoo xam ne jinne lañ waaye seytaane leen dugg moom la yaay eh, seytaane leen insi wal mooy seytaane bi nga xam ne jinne la waaye iblis ko dugg ak nit ki nga xam ne nit la waaye seytaane ko duggu parce que yàlla du dàq nit gi waaye saxal la seytaane gi du dàq jinne ji saxal la seytaane gi fee nag dafa dàq jinne ji ba mu set tuddee ko minal jinnati nag génn dafa génn ci jinne comme kaana minal jinni eh. looloo tax mu ne minal jinnati wa naas du dégg wax ji lii moo tax iblis <laughs> uh-huh. ak uh, njabootam gi ñooñu ñooy xannaas macha